salam patriote patrali mag leni di ziar bu baax di bege ci bajo Camara la bëgg a jité après ma ñëw ci affaire biñ nane naan ay euh, moy investiture présence nan son ko biñu interdit ak ay affaireu euh, xawma 1 2 rek ñu ni la euh, ay ay xawma lan état raison d'état ak ak ak Tafa Diop maire Louga ministre mag ngi ñëw ci mom aussi la tëjee ci mom Badio Camara laa bëgg a ñëw ci benn question mu xam ko xam nga conseil constitutionnel président de la république bu ñu ko faree sax seen kanam lay taxaw juré ça veut dire yéen yéen sut lépp lu nekk Sénégal yéen yéen yi ay magistrat Khalifa Sall dan kaa daanoon fa ngeen jafandu ni dan laa daan daan bee ngi nii Khalifa Karim Wade dan kaa daanoon justice ngeen génn jàppal bàyyil président Ousmane Sonko yéen ay magistrat comme yéen bu nekk si ngeen Ziguinchor Saba si bay moo ko seetal ba mu set wicc ni na dugg ci liste électorale yi jox leen ko fiche de parrainage ñu ni déetawaay tribunal grande instance bu Dakar joom xaw ma la joom xaw ma la tudd magistrat boobu comme yéen seetal ko ba ni konti dara amul la nekk ci liste jox leen ko fiche de parrainage am lépp ba mu leer nañ administration nga xamante ne ay ay surga lañu ni duñ ko appliqué def naa nag yéen conseil constitutionnel du ay surga moo leen di diriger yéen du ay surga mo leen ni manqué respect yéen ay justice yéen loi lu ngeen décider nit mën na ka kaas wax bay bëgg a demee da wax leen ma ban décision ngeen teg ci kaw Ousmane Sonko bu négatif mu kaas wax lu ne mais teewul appliquer nañ ko ça veut dire Badio Camara say moromu magistrat ñoom ñoo wax te xam naa nag tey du yow yaay ñëw di leen démentir wala naan leen déedéet li ngeen wax amul li naan affaire parrainage dana jàllam du jàll man gëwuma sax ngay naan ay parrainage bi doo ko dañ te administration bi ñoo ko bañ a jox fiche yi justice ordonné administration bañ te yéen yéen justice ngeen yéen ay magistrat li gars yi di laam-laamee sax ma ne lii doomu aadama sañu ko sax naan ay du ma jox Ousmane ko du ñu accepté tey ay parrainage am ndax amul fiche non non je pas leneen te yeneen di yëpp am na ko neuf pièces yëpp am na ko yéen nag yéen a mën a indi justice ni justice mooy dogal ci dëkk ba faw doomu cheikh cheikh Mohammed bu cheikh Mohammed Ben Zayed El El El Sultan El Nahyan Zayed bin Sultan El Nahyan mooy cheikhu émirat arabe uni di cheikhu Abu Dhabi benn doomam dafa génn école mos naa ko wax ñu laaj ko ba ngay génn lan lan la gën a jàngal nga génn xam ne lii nga war a maîtriser dans ta vie mu ni lin li ma wax li li ñu gën a wax dañu ni dëkk boo bëgg a xool si c'est un pays fort il faut regarder sa justice ndax am na justice bu forte su dëkk bu am justice bu forte rek dëkk bu va être un pays très fort basta loolu la wax noppi suñu justice lan lan lan moo koy foral justice Sabassy Faye Ziguinchor Dakar joxe décision ñu bañ cour suprême yéen a war a sauver justice bi yéen war na justice mooy toggal ci dëkk du président de la république du politicien yi falaa yam yow nag maa ngi avancé ñu ñëw ci un deux ñu ni raison d' état raison d' état xam raison d' état maanaam ab koñ bu ñuy def manifestation nga ñëw ni peut-être day am ay infiltré trouble loolu la préfet bi fen soit renseignement généraux yooyu fen wala préfet bay fen il faut oser dire wala ministre ba ko mooy fen bu dee renseignement généraux yi il ment c' est des menteurs bu nekkee nag ministre ba la ak préfet bi c' est des menteurs man naa man si ma nekkoon ministre de l' intérieur man ñu ni day am ay infiltré yu ñëw xaw ma lan dama naan c' est le bon moment soldats yëpp laa wax ñu préparé wu pare renseignement généraux yi ñëpp ñu aay ñu ne laa ah, def pa pa pa pa fenkat yi ñenn ñi def civilu yëpp dem rax ci manifestation bi xool ñen ñoo leen rax bandi bu leen tax jàppal bàyyi ñu jàpp ñëpp yóbbu ndax malfaiteur yooyu la ñuy wër pour jàpp leen yow nga ni malfaiteur day ñew duma ko organiser ndax malfaiteur day ñew yow kay bëggo japp malfaiteur yi bu len bëggon japp kay di nga leen iri ñu ñew nga japp len loolu moy état bu fort mais état bu faible moy daw yéen ban malfaiteur sax fii ñew lan lan lan ngeen mësa autoriser lu xamanteni Sonko bok na ci ngeen gis sax ben butéel ben butéel buy traîner parce que vous êtes des menteurs des peureux sénégalais yi nara a wandi len diw lan bëgg a fal moo leen di traumatiser da ngeen di dof Macky Sall kon day xam moo tax ngeen di daw vous n'êtes même pas et vous êtes là pour dire raison d'état un état peureux ragal vous n'êtes même pas honte cent treize école établissement yu amul mur boobu ana état loolu mooy raison d'état cinq cent treize écoles yu amul mur clôture loolu mooy raison d'état moom ngeen waroon lijjanti sept cent quatre-vingt-cinq écoles yu amul lampe électricité loolu mooy raison d'état rapport OFNAC IG euh, IGF Mame Mbaye Niang 36 milliards la du sax 29 ay 94 milliards ay cent milliards yeeg même Aly Ngouille Ndiaye pétrole ba mu jaxat-jaxateeg ak ak yeneen rapport ya fa ne yëpp loolu mooy raison d'état lool ngeen waroon loqati teg ko ni na génn c'est l'argent de l'état loolu mooy raison d'état mais ab koñ koñ quartier ngeen di noom mënoo leen ko sécuriser yéen Sénégal mënoo leen ko de yéen a ngi saaga ndey sax suñu homme de tenue yi jullit même pas honte préfet day laaj général Moussa Fall du mooy taxaw nan dëkk bi dara du fi xew territoire Sénégal bi yépp la wax ñun ñu wax leen rek ci benn koñ koñ koñ lañuy def investiture ngeen ni non mën nañu sécuriser pays mais mënu sécuriser koñ lamb bu amé kérok Ama Baldé Modou Lô mille six policiers ngeen ni mëno leen sécuriser koñ day am ay état da faragal infiltré état mo ragal infiltré ba paré ni état ngeen non wi ngeen des fois li ngeen ni wax sax xamoo ko ban infiltré dara amu fi dara da ngeen na fen fen fen ba jël seen fen def ko dëgg gëm ni dafa am infiltré dara newul Sénégal sénégalais yi génnoon alu ñoo togaat japp seen ñambur c'est honte ma ñëw ci Tafa Diop maire Louga wa Louga la bëgg waxal fi kéro wax ko wa mbacké tay wa Louga la wax sama mbokk Louga yi sama papa Louga la juddoo waa Louga ngir yàlla war a suul lii Tafa Diop yéen a ka fal wax leen ma lan la def luga lan lan ni leen ma lii la def luga lii Dakar lay toog ba benn moment jot mu jël xaalisu nguur gi ñëw dajale jeunes yeeg ñëpp xam na ni dëkk bi dafa metti nit ñi danoo sonn ku farag yoo ñàkk farag yoo ñëppay màbb ñëw mu jox jigéen ñi jox booy démb mairie ba ba CM ba rayante gu métti fa am waa boobu ana trouble à l'ordre public xanaa amul ana ñi naan dañuy bañ investiture bi. Dakar te bu Dakar da na na won am kam enjoy fetu ñibi même Tafa job démb toj na luga rayante gu metti ndax ñibi wat Amazon yi mom da iri Dakar jox leen xaalis bala ñu dem vie privée du ma ci dugg leneen la def jox leen xaalis ñu delu sa yu ñew wo leen ñu organiser ko mu ñew maire yi jox leen delu wat mom dal moy politique yu yi xaar mu ñu jox leen dem defarul dara luga Louga wax leen ma lan la leen Tafa Diop defal mu ñëw mel ne da leen di fowe waa Louga jël leen seen responsabilité vous êtes des jeunes comme moi bañ leen téye leen seen carte préparé leen ko président son Sonko Louga dafa war a changé Louga ni mu mel Louga war a nekk dëkk boo xam ne dëkk dëkk de réfé région de référence ay politiciens ñëw leen foye bu ñuy jël xaalis séddale leen taw toog ba xolom seddaat ñëwaat mel ni ku yor ay faux fonkaam benn gétu bëyam ngeen baal ma pas yéen laay wax mel ni rek kenn ku yor gétu xaram bu ma ñëwee jox leen lekk ñu daw ñoom ñëpp njëkkante après ma dem sama yoon saa ma gisee rek daw ñëw loolu loolu la ñuy bañ buñ ko nangooti gars yi Tapha Diop est un crétin un salaud baaxul jagut santut yàlla mel ni ku yor ay faux fowkaayam bu nee Dakar nguutaandaat foofu ba doyal woo ñenn ñu ñëw mu nguutaandaat jox leen xaalis bu toogee ba benn durée ñëw Louga ni xaaral ma dem yëng yëngalaat af gém bi boo leen génnee xaalis ak ñoom ñëpp daw xale mag ñëpp parce que nit ñi danoo soxla xaalis bi dëkk bi moo metti te ñoom ñoo def noonu système bi pour nit ñi di sonn bu ñu am pour ñoom saa yu ñëwee génnee tuddi ñëpp daw topp leen hypocrite dëgg lañu te ñun danoo bëgg ñëpp amandoo li soo koo wax li ñëpp li li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu mooy slogan wu Pastef raison d'état bi nag maa ngi ñëwaat ñoom dégg raison d'état raison d'état ay nit yuy lekk ceebu jën di lekk maafe di dem douche di tëdd seen soxna di dem ñooñu ñoo toog ci ay institution représenté état ay nit njaay lañu comme yéen yow mi toog nit ñu lay naan état nga impression yaakaar ay jinne ay malaaka lañu ay nit njaay fa toog suba dañ fiy jug ñeneen toog yéen ñi may waxal ni ngeen may xool suba mën ngeen fa toog bu mu leen sax yëngal waa APR fa toog di fen bu ñu bëggee bañ dara rek naan raison d'état raison d'état dara amul Sénégal jàmm ak salaama fi am lépp normal ay bandi lañu te ñoom ñooy bandi yi bañ fee jóge basta gars yi maa ngi jégalu bu baax loolu laa leen bëggoon wax tey merci